Euh, réquisition bi nga xam ni euh, procureur defoon na ko euh, di di di sàkku rek nu daal def li nga xam ne nag moo di euh, mandat dépôt daanaka loolee euh, mujj na daal di sotti bi mbir mi àggee ca table procureur naka tey jii nañ ko daal di placer su mandat dépôt waaye aussi daal di ci toftal ab benn ouverture information judiciaire contre ki nga xam ne moom moo di Jérôme Bandiaky ana tey jii nan nga mën jàngatee nuñ ko placer sous mandat dépôt ak yan rebondissement nga ci xaar ginnaaw ba nu si sàkkee ab information judiciaire waaw Serigne Serigne Doro yow daa mel ni sànq gisoon nga ma dama soj de gis nga oh. mais ça va euh, bàyyeegu ma j'espère que fii ak ngoon dina ma bàyyi parce que su ma paree. Doro ñaaw dinaa daw daw daw boo xamante ni. Mm-hmm. je pense que fi dina ma bàyyi force. Mm-hmm. Euh, kii Serigne bi yow Silla. Mm-hmm. sa turandoo daa bind. Ablaye Silla. Euh, Ablaye Silla nee na lu ñu koy waxal lu dëgg. plainte bi ah. nee na si ñëw. ah wala waxoon ñun ñoo ngi si Jérôme bi saa soñ bi jàpp na la de. ah yaa ngi si Jérôme ok ah si jàpp na ma nga ah, daanu nga de. ah laa wax Jérôme. ah ah ah là là. saa su fekkee ni soj bi jàpp na la. non jàpp na ma sérieusement maa gisoo <laughs> ñëw léegi ci ci ci Abdoulaye Sylla mais eh, mais. waaw maa ngi ci maa ngi ci juróom naka tey jii dañ ko placé sous mandat de ah, dépôt bi tamit di ma di ma def signe sama xam ne ah tamit Maymuna tamit moom laa gisul café gi tamit <laughs> kii mu tudd sax Maymuna euh, non Maymuna garaawul xam naa mu ngi mu ngi wàcc euh, Silla mhm. euh, xam nga affaire Jérôme Bandiaky mhm. wax naa fii waxaat wax waxaat mhm. j'espère peut-être une dernière fois pour ñuy seetaan ñu comprendre Euh, amul kenn wala wala tey. Uh-huh. y' a pas une plainte contre lui. Uh-huh. maanaam amul ko bind kayit plainte contre X contre Jérôme Bandiaki amul uh-huh. plainte lu am mooy signalement. dañ koo boole. ku ko ku ko boole koo ciy njort mën nga jàpp ne c'est l'autorité judiciaire. mu jox ordre. dikk dikk yónni ay éléments am ñu dem jàpp ko mhm. bu ñu ko jàppee il faut que j'aime une précision parce que dafa am ñuy créer débat ay perquisition lu ne ñu dugg si mhm. ñu dem jàpp ko jàpp boobu bu ñu ko jàppee boo ko fekkee ci këram mhm. jàpp boobu loolu li ngay fuyee loolu perquisition loolu tudd perquisition rek fuy la fuy la d'accord mais mu ngi tudd lu ñu tuddee euh, su ma jumulee pas fouille mais le nom le nom et le qualificatif qui domiciliaire encore c'est maa ngi fàtte domiciliaire le truc domiciliaire mm-hmm. mooy dañuy ñëw sa kër pour jàppaale la jàpp bi ñu si mm-hmm. seetaale lenn loo xamante ni mën nañ ko fi gis mm-hmm. léegi bu ñu la yóbbee fu ñu la nar a yóbbu nag su boobaa bu ñu la yóbbee ñoom ba jàpp la yóbbu la garde à vue feneen fu la nga doon yóbbuwaat fenn foofu ngay dem. Mhm. loolu perquisition la tudd. lan mooy perquisition. léegi nag perquisition bi. mën mhm. na am ci ñaari anam. naata ñu ñëw ci chef d'accusation yi. Mhm. am na perquisition yoo xam ne suñ ko naree duñ la tàggu. mais am na boo xamante ni obligatoirement kër gi nga nar a dem nit ki da nga koy yégal ne maa ngi ñëw. dama bëgg a dem sa kër nga ne d'accord ñu dem. moo lu muy mandat de perquisition il faut que mu am lu ñu dee assentiment mooy le consentement de la personne du propriétaire mhm. du domicile de la maison ou bien du lieu ou bien un des responsables de ñi nga xam ñoo ñooy local bi mhm. léegi supposons pécunition boo xamante ni euh, mënuñ la tàggu ala kulli aal mënuñ la tàggu mooy supposons nga yéeg ci kaw nga tiimale waa kër gi nga ot tenir en otage mhm. nga tiimale ay fetal nga dem ñu woo ñu woo police police ñëw. Mhm. mu jàpp ne local bi plutôt insécurité am na fi mais buy ñëw ci kër gi du tàggoo day ñëw rek wàcc descendre ci terrain bi. Mhm. jàpp leen ba pare fuye waa kër gi yëpp yóbbu lu ñu war a yóbbu xool lu ñu war a xool. parce que soit l'infraction bu dee dafa nekk en cours. Mhm. ou bien ay un problème de sécurité foofu amul perquisition amul amul mandat booy laaj mais par contre. soo bëggee ñëw ci kër boo xamante ni ana yow ana man. Mhm. nga ñëw ci kër gi da ngay maa ko moom da may laaj da may laaj ma acte bi mooy assentiment bi. Mhm. ma accordé la comme ça nga ñëw fuye léegi nag fuy bi soit damay fekkee wala ku ma doy fekkee wala sama avocat fekkee. Mhm. léegi zéro ñetti mbir lañ koy toppee te dinañ am leneen liñ koy toppee. parce que ñi tax ma wax loolu mooy ñoom bu ñuy ñëw. Uh-huh. newoon naa la fii keroog am na lu ñuy wër état Sénégal lu ñuy wër du ay appartement uh-huh. wëruñu ay passeport diplomatique uh-huh. bu doon appartement la ñuy wër bisu bi jour bi ñu ko fekkee ci appartement bi dañ koy jël ndànk tegal ko benn accusation bu tudd escroquerie à l'état kese parce que da nga ciy dëkk te waroo ci dëkk kon mu jeex mais bu ñu ko jàppee lu ñuy dëkk lu ñu def danoo dem wër ba gis pistolet mbuur pistolet boobu moo indi détention détention illégale d'arme illégale illégale d'arme mhm. léegi bu ñu paree ci loolu ñu tegal ko ci beneen mhm. boo xamante ni ci fu ñu ko fekk mooy si Ndakaaru mhm. lu ñu fa fekk mooy le passeport diplomatique mmh. parce que sur le par passeport dañ ci bind agent administratif agent administratif il n'est pas un agent administratif loolu mooy usurpation de fonction waaw loolu mooy def agent de sécurité rek mu jeex mais doo agent administratif tu tu es agent dans quelle administration supposons léegi supposons ñu ngi ko wër. Mhm. ñu ne léegi si agent administratif léegi ñu wër ko dans les services de l'État doo ko gis doo ko gis impôt domaine doo ko gis ministère benn. Mhm. doo gis benn direction léegi il est agent dans quel dans quelle administration de l'État du Sénégal amul donc mhm. c'est c'est de l'usurpation de fonction da ngay dugg léegi nag lu ñu doon wër Farba Uh-huh. est-ce que passeport lañ doon wër kër Farba Ngom uh-huh. lu ñu fay def est-ce que escroquerie benn objet bi waree na est escroquerie am na lañ doon wër mbuur no léegi lan la ñuy wër c'est ça la véritable question d'ailleurs loolu moo uh-huh. waral ñu def ce qu'on appelle l'ouverture d'une information judiciaire parce que le juge le procureur bi ko placé sous mandat de dépôt il n'est pas seulement satisfait des trois chefs d'accusation yu mu am mais njortu na ne leneen mën na ci juddu loolu mooy l'objectif d'une information judiciaire moo tax mu demandé au juge d'instruction. Mhm. cabinet xaw ma deuxième cabinet xaw ma pour mu tijji information maanaam demal nga xoolal ma leneen parce que leneen mën na si juddu. Mhm. léegi leneen mën na si juddu nag jàppal ne euh, moo tax je pense que démb laa ko fi waxoon. Mhm. yeneen perquisition mën na am. perquisition mën na am parce que dafa am ñoo xamante ni par exemple bu ñu gisoon ne déglu nañ Jérôme dégluwaat ko. ba mu ba mu wax leen ne li ngeen di li ngeen jot dem leen këru. est-ce que xam nga ñu wax même bu leen waxoon na présidence. li ngeen di seet présidence la dañuy dem présidence fu perquisition. Mhm. dem fouiller fépp fu mu leen wax ne lii mu ngi fa dañuy dem xool. jusqu'à ce que ñu am complètement toutes les infos yu ñu soxla. Mhm. léegi na mbir mi foofu la toll. moo tax donc une information judiciaire ayant pour objectif de de trouver d'autres indices d'autres mhm. renseignements d'autres informations preuves documents loolu mooy li ñu tuddee l'objet d'une euh, d'une information judiciaire. Mmh. on verra les jours à venir, pour ne pas dire les semaines et les années à venir. Mmh. ah semaine wala <laughs> loolu moom. Ah, dina doon lu yàgg de. Ah. mais mais mais aussi nan nan nan lu mën def ak plainte bi nga xam moom la moom la dugal def ak euh, ni ko placé su mandat de woo dañ koy génnee prison. mu dem wuyu mu dem déglu ñu déglu ko. c'est ça c'est simple c'est un dossier c'est un dossier distinct. Mhm. yu bokk la bële lu muy amee rek mooy. yaa ngi ci kaso bi pour benn affaire. Mhm. pour ñaari mbir ñetti affaire plutôt yaa ngi ci mandat de dépôt. Mhm. sa sa mandat de dépôt placement boobu jotewul ak dossier beneen bi nga xamante ni moo tax ñu lay topp. Mhm. bu ñu la bëggee xam bu ñu bëggee xam li lay topp am na wala amul wala lan la ci dañ lay génnee procureur mooy demander juge d'instruction maanaam ku mu dénk dossier bi ne ko. waa ji ngay topp pour ñetti mbir yi. am na beneen plainte bu nekk fii nii léegi police loolu la ñuy tuddee extradition génne ko ci prison bi pour mu dem fële police mhm. ñu def ce qu'on appelle une audition pour une nouvelle affaire et dans cette affaire également comme ni ngay comprendre rek mhm. ba jaxate yi dañ ko condamné woon tëj ko mhm. Ababacar Mbuub porte plainte mu dem ñu dégluwaat ko donc noonu lay demee donc dañ lay déglu pour beneen affaire boo paree delloo la ci kaso bi. exactement alors Thion ci ci ci wàllub yoon ne ba tey ak euh, plainte bi